donc lépp loo xam ni ci njaalbeen gi ba léegi am na ci nitrate d'ammonium bii nga xam ni moom la xeex ngir mu bañ fee nekk mooy à l'unanimité ba ci ñoom nangu nañ ni mbir mi baaxul donc mbir su baaxul nag danga ko yóbbu fa nga xamante ni foofa la yelloo waaye nitrate bi buñ xëyee xëy indil ñu ko ci loo xamante ni kenn ci population bi yëgu ko lu dul Facebook lañ gisee convocation yi vraiment loolu mënta am transparence te boo liiree rapport bi dañoo wax ni à l'unanimité donc mbir moo xamante ni ña nga xam ni ñoo ko voté

ëlëk bu musiba di am dina nek musiba bo xamanteni kenn ci commune bi du ko du ko nittali kenn donc lool moy li nga xamanteni li ñu bëgg maire mu def ko moy mu population ndax bu fekke population bi moko fi tek bép pouvoir bu mu am rek population bi ñoko ko jox population bi musta indi projet ñu juk taxawé ni ko dédét kon loolu bu amé population bi génn ni ko déedéet war moy mu population bi ta baña top bëgg-bëggam ak lu ko neex ak dolem bëgg forcer def li nga xamni moko neex loolu nak duñ ko ko may lepp lu mu jar ñun paré nañ pour def ko ba wacc suñu dundu ngir suñu njabot ëlëk ñu daal di koy mëna a ndax projet bi li nga xamanteni ay conséquences la ci képp dem na ba day yak nappe phréatique bi nga xamni loolu nekk na lo xamni suñu njabot ñokoy kon ñun duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëlëk dañoo am jurguy sammi ci all bi te produit bi nenañ rayon bi 500 mètres la c'est faux rayon bi day tourner autour de cinq kilomètres tason son xale yi ak jur gi mënuñu leena té dañuy dem ba ci giri di dem fune donc li ñu woo kenn ku nekk ci ñun moy mu jël responsabilité am taxaw ni maire li ça ne passera pas on dit non projet bi nga xamanteni mom la fi maire bëgg indi moy exploitation nitrate dama ñëm xam ni amul sapeur pompier amul hôpital bu baax donc ban nous avons appris à travers les réseaux sociaux une convocation émanant du gouverneur de Thiès convocation à laquelle il était obligé de faire l'étude le partage sur l'étude euh, d'impact environnemental et social sur un projet de construction et d'exploitation du nitrate d'ammonium nous avons pris notre temps d'aller jusqu'à la sous-préfecture de Tchénéba pour consulter le rapport. Après consultation, nous avons constaté que déjà cette société, c'est une entreprise de construction et d'exploitation. Il s'agit ici d'une entreprise de délocalisation qui a voulu délocaliser son stock qui se trouve au niveau du port autonome de Dakar pour le délocaliser ici au nouveau de Ça, nous le déplorons. L'entreprise a une capacité de 6 000 tonnes, nous disons bien 6 000 tonnes au moment où, pour 3000 tonnes de nitrate qui se trouvent au port autonome de Dakar, Dakar est en danger. Au moment où Dakar est en danger, comment se fait-il qu'on puisse recevoir une quantité aussi importante au nombre de 6000 tonnes, alors qu'on ne dispose même pas des mesures sécuritaires Pas, pas un sapeur-pompier, pas un hôpital digne de son nom. Comment on peut accepter un tel projet Nous avons rencontré avec le maire Moussa La première chose, c'est qu'il a déjà fait une délibération le 2 octobre 2021 à cette société. La deuxième, c'est qu'il a donné un avis favorable. Un avis favorable que nous nous déplorons. Et à travers la consultation publique, toute la population de Ngundian a jugé favorable. Nous disons que cette information constitue l'information la plus fausse de toute l'année 2021. Contrairement aux informations qu'il essaie de véhiculer, en disant que le produit il va être utilisé pour les carrières, ça c'est archi faux encore. Le produit dont il s'agit, il est exporté directement au niveau du Mali, plus précisément au Siama. La deuxième partie, elle sera transférée au, Sabadola à Kédougou. L'autre argument, c'est qu'Ongounian dispose suffisamment de dépôts explosifs. Pour le moment, nous avons quatre dépôts explosifs, sans compter les stocks qui sont déposés au niveau de chaque entreprise minière. Donc ça suffit. Est-ce que Ngundial il est plus vaste que Diamniadio Est-ce que Ngundial il est plus vaste que le Mali Pourquoi à chaque fois Ngundial, on veut mettre Ngundial comme un bobos des produits explosifs Ça ne passera pas. Nous disons non. Nous disons non. Li nga xamné mo ñëk tax ma ñëw fi mo di ñenti fan ci wéru août ci atum 2020 Beyrouth capitale du Liban dafa tak ndax lan 2750 tonnes de nitrate d'ammonium benn avant Beyrouth boobu États-Unis am na benn année boo xam ne 2013 bu dee juumuma am na gox bu fa tàkk ndax nitrate d'ammonium avant États-Unis boobu France am na gox boo xam ne moom itam tàkkoon na ndax nitrate d'ammonium muy France muy États-Unis ay nit yu bëri ñoo fa dee États-Unis defe naa ay ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett Beyrouth moom kenn compté tul ñaat nit fa ak ñaat nit am ay Nous ngi nan Beyrouth bi fa nitrate d'ammonium bobu explosé bi mu éclaté muy 2750 tonnes Rire bi ñu ko don dégg ba lu mu néw néw kilomètres à la ronde bi ñu Sénégal Liban ñun Sénégal ndax dañoo ëpp les États-Unis ñun Sénégal ndax dañoo ëpp les France waa Nguñaan ndax mo ëpp les États-Unis ndax mo ëpp doole France ndax mo ëpp doole Liban moo nous disons non à ce projet ici à Ngoundiane damay fatali nak Sénégal bëss bu nekk amna plus de 50 enfants de moins de 5 ans yuy dé. bokk na ci li leen di rey socc bir bu daw ak lu ñuy infection respiratoire aiguë wa légui kon nitrate d'ammonium boobu <coughs> xanaa dafa nar a yokk lim bi fii ci mundial motax vous avez totalement raison ñoo lank ñoo bañ nous disons non. nous disons non nous disons non. nous disons non non à ce projet. non à ce projet non au nitrate à non au nitrate à non au nitrate à Ngoundiane. non au nitrate à Ngoundiane. nee nañ